ngi fàttali nit ñi ñu bàyyi xel lool. donc hmm. am na solo beneen bi tam mooy justice ñoo ngi wax justice justice mais travailleurs de la justice. Mm. les greffiers. des acteurs ouais. de la justice yoo xamante ne ça fait combien de mois. waay ñu ngi nekk dem tribunal di nga ci xam dara. ñu ngi grève te suba ci encore ci lay nekkaat. Hmm. ku mel ni sudjust te lu ma liir ci seen communiqué bi lenn la ñu wax moo ne ne les acteurs politiques. Mhm. dañoo am facilité ci gaawantu lijjanti. lijjanti seen mbiru bopp moo xam mu laal justice. wala mu laal politique mais dañ ciy sawar gaaw a booloo lijjanti seen problème. Mm. mais ñi nga xamante ne ñooy ñiy liggéey ci biir. te nekk ci ay jafe-jafe seen problème ñu ngi koy wax boobaak léegi. duñ ko lijjanti. te ministre fonction publique ma ngi leen di tànqam. donc mm. loolu itam ñu ngi lor ay justiciable yoo xamante ni ñu ngi dem yaakaar ci tribunal pour seen mbir moo xam euh, sëy la moo xam ñu récupérer seen doom la moo xam moo xam moo xam. Mm. te loolu itam ay jafe-jafe la yoo xamante ne beneen gouvernement wala président bu ñëwul ci réew mi. du gaaw saafara ndax kii toog fii nii. yaakaar naa ni am na leneen lu ko yittee lu dul yokk ay charge ci kawam wala hmm. book jël ay engagement yoo xamante ne leeru ko ndax dina ko mate wala du ko matal boole ko yeneen journée morte yi nga xamante ne annoncé nañ ko journée sans kii commerçant yi dugg ci biir journée morte yi la suba ak euh, aar sunu élection yooyu yëpp boo ko ci boole ay plan d' action yoo xam ñu ngi koy laal yëpp rek ak les les travailleurs des collectivités ñoom it dugg nañ ci ay jours de grève. de grève. waaw sans tant que ça sans compter ñun suñu journée bi ñuy woote. journée bi ngeen di woote mercredi léegi léegi. taraxlaayu da ngeen di <laughs> ñun ñun journée taraxlaayu nañuy woote ñun. mais xëy ñëpp taraxlaayu génn ci mbedd yi <laughs> ñëpp ñëpp. taraxlaayu mais taraxlaayu. waaw waaw ah? waaw taraxlaayu kiwul de. taraxlaayu dëgërul de. waaw na ñëpp taraxlaay mu xotteeku de. loolu dara benn couleur sa taraxlaay ngay dal. kenn bu taraxlaay bi génn ñu lacrymogène di fekk la fa day day. soo dañuy tëdd ci tali bi te ñun suñu taraxlaay du ñu marché de ñun dañuy tëdd ci tali bi nag ku ku ne foo tëdd ci tali bi. xanaa oto du ñëw jéggi sa sa sa. ah on sait réew yi moom lu ne mën naa koy nekk mais si ne tey je pense que dialogue bi war na mën a jeex maa ko doon suivre sànq mais dafa mel ni. Euh, fi ne nii euh, daaneel nañ. Mhm. finalement ci ñaari fan la ñuy wax suba kon <laughs> ban njëriñ la am comme bu dee. première journée bi bu ñu xoolee oui euh, non dégg naa mais dama bëgg wax ni ban solo lañ ko jox bu fekkee ni bi njëkk rek. Mhm. li ngay lii ci ñi koy bàyyee xel mooy nii mhm. oui déception lañ ci am en réalité. amuñu ci li liñ ci waroon takk dëgg takkuñu ko ci. Mhm. kon lan lay jariñ bu ëllëg ba. mais d'ailleurs d'ailleurs li la koy wax mooy sànq li ma leen expliqué. Hmm. xam nga président Macky Sall ku jamono yii moom. Hmm. man seetlu naa benn affaire. mooy bés ma nekkee ci kaso ba léegi. Hmm. président dafa free quoi moom. <laughs> loolu ma naa loolu quoi xam nga lu ma la. Ah oui euh, noo xoolal. ba bi fi Ousmane nekkee. le président bu doon def da koy calculer xaw a sérieux sérieux quoi mais daal léegi daal dama mel ni daal moom xool nekk si quoi man xool. xel bi dafa <laughs> bi dafa dal léegi buy wax nii lay def xam nga buy xam nga. attention <laughs> et cetera et cetera xam nga day toog élection yi à quelques heures mu dàq ko. mu dàq ko yi yëpp yi ñoo mën a damay dialogue waaye mi ngi noonu daal moom moom daal. Euh, il faut ñu xolaat euh, il faut ñu xolaat daal. Hmm. Euh, président daal mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi noonu daal. xam nga. Hmm. Euh, damay faral di tooñ ko Tomé Jerry xam nga dessin animé. Eh, eh, wax nga dessin bu ma neex waaye. maintenant <laughs> reste à déterminer qui est <laughs> benn yoon lañ mës a juboo Tomé Jerry. waaw waaw di seetaan waaye dañoo mujj xaajaloo ndax dañ leen tegal seen bopp. voilà très bien <laughs> ñu ñu mujj kii bi mais mais mais Ousmane loolu moo lay expliqué. par exemple euh, Macky Sall euh, sànq dama koy wax rek. Hmm. mais ci lii nii il a réussi un gros ci lii nii. waaye il a réussi un gros coup en termes de communication politique. Ah, ah. fu mu njëkkee réussir coup mooy ñu xëy ba war a def campagne. mu dàq affaire yi. comprendre après bon il n'y a kii rek xam nga Sénégal yi moom. affaire daf leen a ah, jëlee kaw waaw non daf leen jëlee kaw nag parce que ñëpp la jëlee kaw. man jour boobu. gis nga lii bi Côte d'Ivoire gagné Sénégal. li nga yëg bi gën a mag laa yëg bi ma bi bi ñu ne. man foog naa day wax lu ne. ba mu des reporté ba mu des reporté mais bi mu waxee reporté ndox laa yoroon. Hmm. mais damaa toog ci chaise bi ndek man toog ma ci chaise bi ci bi damaa la <laughs> sama tànk mais xoolal tout le monde de court gars yi euh, après bu ñu xëyee suba devant le fait accompli. Hmm. les gens qui essaient de s'organiser pour faire la riposte. lii tamit nan lañu amaatee deuxième coup. mooy ba muy def point de presse ak gars yi. Hmm. dafa waxoon ni l'heure est grave. léegi xel yi sax ñu ngi doon ji naan mais est-ce que lii est-ce que jar nañu toog waxtaan est-ce que. comprendre hmm. Sonko léegi est-ce que dañuy kii et cetera léegi il avait semé le doute ba tey kii bi jot il en a fait une euh, benn théâtre quoi est-ce que benn théâtre le soir. est-ce que la koy wax mooy euh, dialogue ba xam ba nañ commencé. 18 dis 19h. tu te rends compte dialogue. pour lu toll aussi sérieux le matin ba léegi ci lan lañ nekkoon. comprendre heure bi normalement waroon na fekk bu ñu xëyee la matin ba def si les les les règles ngoon si c'est en commission en tout cas ñun atelier bu ñuy def. waaw bu ñu xëyee suba fixé affaire yi. le soir on entre en atelier en commission normalement demain ça devait être les restitutions. waaw ba léegi yow. yow tey nga baal ma pas foo toogoon yooyu est-ce que mën nañoo tenir <laughs> yenn ni aram di wax. comprendre nga 19h 21 nga tas. comprendre suba nga war a ñëw ay commission technique war a liggéey et cetera donc mu li ma lay wax ne rien de sérieux y' a rien de sérieux de kii bi en réalité Macky dafay dérouler benn benn acte quoi. Hmm. comprendre léegi nag yii da koy soxla soxla ko sax pour ñun parce que ñun xam nañu. xam nañ fu mu jëm ñun xam nañ ni. Hmm. moom xam na ni ñun xam nañu. comprendre hmm. mais ñi nga xam ni xamuñu ñoom perception rek doy na leen ak ay kii ak moom ñooñu lay ñoo. ci ñooñu la ne waaw waaw moom ñooñu lay waxal ci ci ñooñu lay bëgg a waxal. Hmm. mais euh, en tout état de cause. mooy li imam di wax pour man sax loolu laa mën jàpp la pression internationale est tellement forte que mag yi xam na ni moom mënatu fi toog. mënatu fi toog day yàgg rek. Hmm. mënatu fi toog léegi nag nan lay lijjantee. Hmm. ba dem mooy seen affaire euh, loi d'amnistie. loi d'amnistie bi. Euh, bi ñuy bëgg a wax ni mais ils oublient que loi d'amnistie. régime bu ñëw. mën nga koo teggi teggi. parce que loi très bien et sax da def référendum mm. boo defee référendum te fii mi toll nii. Mm. les gars yi duñu bëgg a. waaw ku ñu ne nañu dem xool ndax mën nañoo. dellusiwaat pour li jot ñu organiser référendum réglé ci yenn question yu bari sax. xam nga li fi xewoon faaw ñu càmbar ko xool affaire yi ni falee député yeeg yooyu yëpp ñu réglé ko ci tëggaat boo xefee sax ñu tëggaat benn constitution te bu boobaa bu ñu ko ubbiwaatee dinañ woowaat les les responsables ñi nga xam ni ñu fi woon. mooy dafa lalu ci justice. ci justice ah, moo tax pays yu bëri. d'abord dañ vérité te vérité moom mooy aju ci justice. a ñëw ci rek réconciliation mais dañuy gis nga gars yi hmm. président Macky Sall. Hmm. Euh, su ma dee raisonné ci beneen logique. oui euh, dafa mel ni. Euh, régime bi hmm. euh, karawaas gi leen di caw ñoom ñoo koy jox gaañi xam nga lu tax parce que gis nga amnistie bi bu demee ba jàll hmm. prétexte le premier régime comme demande social lay nekk hmm. ñu profité waale defaale référendum boo xam ne dañuy reglewaale problème mu dëkk bi yëpp problème mu justice dinañ ko réglé waale réforme yi ñu ci war a indi assemblée nationale réforme yi ñu ci war a indi ba ci sax affaire yu mal gouvernance constitution Sénégal constitution bu Sénégal waaw li ci jot a am yëpp. mën na sax permettre après. beneen constitution bu bees. kon donc sur te boobu dañuy am onction. parce que. onction du peuple day fekk waaw. xam nga Macky Sall yaa ngi koy fàttali ba mu def référendum eh, ñaata affaire la ci ñambaas. li mu bëggoon yëpp ñambaas na ko ñii ne mën nañoo ñëw jël. 10 points rek wala ñambaas yi bu ñu ko xasee ba def. tëgg sax loi bu bees. constitution bu bees après nag. loi yeeg mën na laa yóbbuwaat sax même 2011 2012 li nekkoon demande sociale ci askan wi. mooy ah ñi ngay dem de. voilà ñu de. nañ leen lijjanti de. mu ñëw surfe ci vague boobu. Ah. moo ko may créé mu dekkil. lañ ca tuddoon yëpp gars yi bàyyi mu jël dafa mel ni même chose boobu. pôle judiciaire financier. justement très bien léegi nag loolu dafay permettre régime bi ñëw. Hmm. Euh, ci benn faire d'une pierre. dix coups. Hmm. comprendre nga. Hmm. parce que demande sociale la bu ko jàllalee référendum askan bi dañ koy voté. Hmm. ñeneen ñi point bu tax ñu koy voté mooy point reddition des comptes ñeneen ñi les réformes yi ñu war a def. comprendre nga souvent sax mën nañu éliminer ñu ne assemblée nationale léegi amatul ay liste nationale. ay liste nationale ah ca gox yi. li jëntuwaat maanaam la mode le mode de scrutin bi affaire bi indi jiixi jaaxa ñu naan kii yooyu ñu yokk ci quel qu'en soit la durée <laughs> ou la nature. waay ñu tëggaat institution ñu vérifié waat dañu war a yi ba xam ne léegi après. Euh, bu ñu ko jàllee référendum. dañuy mën a appliquer maintenant les conclusions des assises nationales. Mm. et les conclusions CNRI parce que l' opposition radicale bu si bu jëlee yooyu lay dawal yi. loolu lay dawal te président Macky Sall dañ ko joxoon yooyu. mu ma ci neex laa jël yu ma ci nekk bàyyi. teg ko na la kon aram falaa bu bu ñuy situé les am na tur yoo xam te ne moom fu nu mën a nekk ci àddina bu régime bi soppeekoo faaw dinañ leen indiwaat ba ñi doon laal di dindi di teg ci constitution bi doon doon doon xelal buur. ba ci ña nekkoon département intérieur ci li fi xewoon mois de mars deux mille vingt et un juillet deux mille vingt trois ak yeneen yi boole ko aussi ci encore sànq mal gouvernance parce que dafa nekk demande sociale ñu ngi fàttali mille milliards Covid yi. Mm-hmm. ñu koy fàttaliku coow yi bëri woon na lañ ca tudd yëpp yooyu yëpp kii ñëw <laughs> faaw mu taxaw ci. dossier milliards yi kay bëri nañ xëy na Covid bi. waaw Covid bee gën a rëy ci ci déggin ak. moo gën a yees. dossier yoo xamante ne nit yi nit yi laajte nañu pour ñu ñu leeral ko. Mm. Euh, am na solo dañoo toll foo xamante ne Pape sax chaque fois dama koy bëgg di fàttali. xam nga bee passé ñuy toog digg penc ma leen di wax naan leen financièrement est-ce que ñun toll nañ foo xam ne on peut se permettre bu ñu bëggee daje rek ñu lii. le dialogue a un coût. bëgg ko ñu bañ ko. c'est vrai que lañ koy fàtte aussi. xam nga ñii ay kilifa yii yàquñu seen nelaw pour ñëw toog foofu noonu. Mhm. quelques heures. di xaar le président mu yegg yegsi pour ubbi loo xamante ne 16h lañ ñu waxoon lay commencé. Mm. mu leer na ni mise en place ba du 16h ah, kon. xam nga ni kon ñooñu jiitu nañ fa. Mm. boobu donc boo leen yëkkatee indi fa loolu koppar la ci kopparu askan bi. encore une fois. Mm. ci lay ci lay lalu donc yooyu tam foofu ñu koy ñu koy bàyyi xel. Euh, li ngay wax maa ngi naan la les mots ont leur sens. da nga xam nga mënoo ne jaloog jaloog dialogue gis nga Pape Ousmane su ma ñëwee tooñ la. ñu ne ñu ne ñu ne Siré ne baal ko su amee capacité wu baal la mën naa la baal. waaye su nekkul ci man yoon dafa ma may boo ma tooñee pour ma bañ a def lu ëpp. waaye ma jaar pour mu teg ma ci fi nga xamante ne nii dina fexe ba lan ma def ñu lijjanti ko te du def lu ëpp. maanaam bu ñu ma bàyyeeg sama yëfi bopp rek. man mu fa yow mën naa def lu ëpp da tooñar bi. foofu noonu laa lay waxee ne la boo bëggee dialogue mm. réconciliation li ngay wax yëpp Gambie ngi nii tout pare. nit ñi justice la njëkk a ci li nga xamante ne mooy régime Yaya Jammeh. Mm. moom def na ko. waaw nañu ko lijjanti bu nu paree nu soog a parce que famille des victimes ñenn ñi lañu xam ne dund nañ ko. Mm. ci ay jafe-jafe la ñu dund ci détention la mm. ñu dund ci seeni famille ñu teg leen ko bëgg nañ mu leer ñoo ñu tam par respect pour ces gens. dañ dañoo war a xam li nga xamante ne mooy. moo ca am ak lu ca am lënt lënt ci. donc loolu dafa war a dafa war a leer. te loolu noonu. du du mënuñu ko laq rek ci ginnaaw amnistie. Hmm. franchement mënuñu ko laq ci ginnaaw amnistie dafay dafay dafay dafay. dafay dafay doy waar. non dafay doy dafay doy moor yi dafa bëri torop hmm. est-ce que est-ce que xool nga tranche d'âge ñooñu noonu. waay 19 ans am na ñu ko gën a féete xale sax ça personne da xëy ñu ne diw dee na comme kii lu mu noo sànq dagg nañ tànku nit. def nañu lii def nañu. mais xoolal xoolal jeune bi mujjee de bi mujjee rey fële ca ca ca ca Saint-Louis. on balance des vidéos. ci réseaux sociaux prospère xale la mais ba tey mu noo xam lan lan lan la lan moo ko rey quoi. on parle même pas de de ça. doo ci dégg sax enquête bi ñu laaj ministre de la justice garde des sceaux barki Dembo Ndiaye ci enquête yoo xam depuis 2021 mu ne en cours ñu ne ñu ne mardi 26 euh, lay lay lay ubbiwaat pour ñu tàmbali li nga xamante ne nii euh, mooy cours yi en présentiel li nga xamante ne mooy cours yi en présent en présentiel temps bi ñu ko tëj lañ fa organiser défilé de mode ca Fasek ñu naan xamuñoo xaaral danañu enquête hmm. alors que ci responsabilité kilifa gi muy ministre de l'enseignement supérieur et de la de la recherche et de l'innovation waroon naa mën a taxaw daal ne lii kat lii ak lii moo ko indi ñu taxaw mu leer loolu boo leeru ñu tëj université nañ ñu dañ ñuy wax ca ña taal chapiteau bu oui bu fac droit la fa la yàqu ca béyu ñu xam hmm. ainsi de suite ainsi de suite fii ak sànq ba tey mu am transparence ñu gis kilifa yi taxaw ñu wax ko nii dañoo xëy ubbiwaat ne kaay leen jàngi parce que dañoo toll foo xam dañ ne libéré nañu bàyyi nañu lii bàyyi nañu laa jóg leen. nañu bàyyi et puis arab booy wax jàngiwaat nga boole kook université li muy perte chaque année ci temps ci ñu ko xam dañuy dab dabaatal at mi yëpp. chaque année dañuy dab dabaatal at. ci ci ci boole kook ci ci ci la ñu dëkk donc yooyu noonu. ak tey boo taxee naan ma ndax dañuy xaar ñu indi euh, ñu situer les responsabilités. ci ñi nga xam ne ñoo jiite département yi nga hmm. tudd léegi. da nga wax justice. da wax intérieur justice dañ fi am ministre boo xamante ne bi woon bi fi nekkoon di interpréter texte yi en fonction de fa mu bokk ak naka lay demee mu jur ay fitna ci réew mi kooku mënoo ne ma amul responsabilité ci li nga xamante ne moo xew hmm. nga am ministre de l'intérieur mu mu mu am euh, responsabilité ci sécurité publique publique réew mi dëkk bi na muy doxeek ñoom seen te nga xam leen ci anticipation ci ni ngi leen di gisee ñuy. Euh, maaye le territoire national ak bu ñu yëgee ne lii am na seen position bu dara amul sax dangay faral di leen gis hmm. ñu nekk ci yenn rond wala yenn point stratégique yi ñu hmm. taxaw hmm. ak plus nag bu ñu déggee ne dara am na donc kon kooku suñu taxawee tey ñu ñuy utiliser des ay forces des outils ak ay armes yoo xamante ne du pour tas ay manifestant ñu am ci ay jafe-jafe ñenn ñi gaañu ci ñenn ñi loru ci ñu naan leen massa leen muñ leen kenn dootu ci waxati. président effacé na lépp nii fàtte na lépp. nañ lépp. dañu waxante dëkk mu am ñoo xam ne dañu war a nañu am respect si si si ñooñu parce que fii ku mu fi nekkoon sa mbokk. Hmm. di nga taxaw wax ba ñëpp yëg ko. waaw xëy na seen baat joteewul. Hmm. wala seen doole joteewul wala wala wala. donc am na yoo xamante ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax baax. Hmm. parce que tamit li Siré di wax rek keneen ku fi ñëw di ko lijjanti. Hmm. ñi fi nar a doon complice naan na bëri de. waaw bu fekkee gëmm nañu ci yu mel nii ñi ci nar a doon complice dina bëri. Hmm.